Euh, dalen ak jamm mbokku internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo pour ñi xamantene xamante ne dama bes chaîne maa leen wax welcome bienvenue abonné leen cliquer leen si cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu dugal ngeen moom ko sitaan bu leen fàtte tamit un vidéo bi c'est très important mbokk yi xibaar comme ni ngeen gisee noonu euh, dama koy jiital si euh, match coupe bi amoon démb joxoon naa leen résultat bu Real Madrid wax leen dañoo gagné tir au but ce soir nag tey ñi ñu doon joué Barcelone doon jàmmaaroo ak Betis Séville bi nga xamante ne moo jëloon coupe coupe du roi bi euh, muy équipe bi xamante Youssouf Sabali fofu la nek waxoon nañ leen ne aussi tamit ñëwaat na ci groupe bi mu nekkoon une très bonne nouvelle euh du côté soixante-dix-neuf minutes la dugg ça veut dire que titulaireul première période bi on peut dire que Barça mo dominé carrément xamante sur benn bi bu xamante la euh, international polonais moko duggal di Lewandowski ñoo dominé carrément euh, en deuxième période Fekir égalisé na parce que après dañu ñëwaat ci jeu bi wa xam nga bañ carrément xam nga Betis bi dafa nek équipe bu bañkat loolu moo leen may sax on peut dire que euh, trophée bi jël daw loolu la équipe bu bañ ko dégg-dégg lañ international français bi ancien joueur de Olympique Lyonnais euh, Nabil fekki moo mujjee égaliser xam nga nekk benn joueur bu xamante ne waa Betis bi bu ñu gestoo rek euh, bu yaakaar ne rek tas rek bu ñu gestoo bu ñu gisee fekki xel dina dal ñu def match nul boobu ba léegi nag après Fati dafa mujjee dugal. Euh, Fatick bi mu dugalee nag euh, Lorraine Moreno bu ñu demee ba prolongation bi noonu mu ñu ñu kii xam nga donc foofu la nekk match nul sori amaat gars yi toogaat di xaaraat xam nga donc mu mujj ñu mujjee gagné Barça mujjee gagné si Turop bi mais Betis Séville bu Youssouf Sabaly amuñu lu ñu lu ñu am regret tey def neen seen kéemtalaay kattan je pense que seeni supporters vu le résultat vu nu mu demee vu Barcelone pour rapport ak li ñu investi si xaalis boo xoolee li ñu classé rek. ci walum koppar donc ñum bétisé bi amuñu dara lu mu leen di métti mbokk yi bu ma jógee je vais parler de qui je vais parler de Sadio Mané Sadio Mané euh nominé si joueurs yi xamante ñoo war xex FIFA the best trophée bo xam tane voilà euh wa Europe boko ko toj li ngay def coupe du monde peut-être yépp dëng ci bolé euh ciy boole euh, du coup nag quatorze personnes la ñu nominé 14 personnes yi Sadio Mané euh, moo ngi ci. Sadio Mané nag naa dina ma gën a jël gars yi dama leen wàllu léegi Sadio Mané nekkul si favori donte daaw dem na final Ligue des champions euh, bon gis ngeen Messi gis ngeen gars yi nañi xam nga ñoo gën a bu ñu waxee li lii na ay xamante ne Sadio Mané gënoon a placé prestation yu mu def daaw euh, muy prestation yu mu def euh, si coupe lig des champions bi je dirais ñu mu ba final mais à savoir que ñu mu jàmmaaroon Benzema par exemple bi jë bandoon mondial déjà mu fa c'est ça ay joueurs comme Vinicius ay Kylian Mbappé Lionel Messi Neymar y en a des joueurs hein, Hakimi euh, Mohamed Salah y en donc mais est-ce que Sadio Mané favori man du len wax ne favori le gars donc pour mu jël ko que dina ma vu top même si vu vote di ken xamul que lañ fi Messi mu jël keneen ak keneen jël que jël nañ fi trophée bi mu jur polémique donc fu ko que ay ko pourquoi pas Sadio pourquoi pas parce que deuxième homme euh, mondial tout est possible. Donc, Mboki, euh, je vais terminer par parler de, de, de Chelsea. Chelsea de, de Edouard Mendy, toujours blessé, n'est blessé sur l'oreille. et Kalidou Koulibaly titulaire après polémique du bëri du jeex ñi dal ka si match yi coupe yeeg yooyu bi Manchester City mu andi penalty et tout ñu gérer kon Etihad Stadium donc après loolu yépp buñ ko waxé

avec la possession c'était pas mal c'était dynamique c'était un jeu bu xamante voilà Moi, gën l'air qui ci man je par rapport ak man su ma vie, sama avis par rapport match Chelsea je trouve que voilà quoi xam nga donc encaissé un but comme ça derby londonien derby bu tàng entre flamme et Chelsea day day métti Chelsea temps yi mu fi amee doole dëgg du tax ak ñoom mais comme nii nii day métti c'est normal et que Flamme dafa nekk di def début saison bu baax a baax après ñu jógee euh, si championship ak yooyu noonu donc euh, ak seen Mitrovic ak seen entraîneur bi je pense que c'est carré li ñuy teg c'est c'est c'est méthode bu leer la concernant suñu kàlla di Koulibaly je trouve que boo doon jël tey jii bokk na si ñi gën a baax note déjà que moo leen andi égalisation dès la deuxième période takk mu loolu euh, xel dal na dèjà loolu rek euh, pour man wane na c'est je suis pas un attaquant euh, le problème de Chelsea c'est trouve que c'est plus un attaquant qu'autre chose c'est ça pour man et de ça égalisé mais le rouge de de Joao Félix yi aidé wu après à à dix si dëkku jàmbur stade bi fees dal supporters yi xam yaa ma a xam rigueur bi adverse andi intensité bi c'était difficile pour Chelsea et que on sait que confiance confiance bi nekku fi quoi donc manque de sens xam bo bo, boo bu lay dóor dóor dóor ay manque confiance sens lepp ay manque donc rouge joie Félix edew et un autre défaite euh, espérons que bon je sais pas ndax entraîneur bi ñu bëñ ñu ne ak maa ngi koy seen commentaire sama internet à voir waa Chelsea ak seen dirigeant la ñu def mais xam naa ne ñu jël ko